Euh, marax mi ponk yi ca gën a fës bokk na ci askan wu takk woon lool euh, sànq nag place de la nation ñu nekk foofu askan wi ba jamono ji ñuy wax ak yéen euh, waaye yeewi askan wi rek ña àndal nag daal di lonkoo rek di xeex nee ñetteelu mandat président Macky Sall du fi am waaye jàppale ni kii nag di Ousmane Sonko kon teewul Khalifa Ababacar Sall nag ak Pape Djibril Fall nee ñu dañu leen doon yuuxoo foofee ci place de la nation lu jëm nag ci ci colk ak li ñu duppee euh, bracelet électronique muy soluk bracelet électronique loole euh, ñuy takkal ñi ñenn ñi caabi féete euh, gannaaw fii ci Sénégal nag kilifa yi taxaw seetlu buñ ci def nee ñu ba mbir mi tàmbalee ba tey daanaka ñooñu ko jot a takkal ci ñi caabi féete gannaaw ci juróom fukk la ñu toll ci li mu ko junni bracelet yoo xam ni jot nañu ko liggéeykat yu Sonatel nag tey ci àjjuma ji dañoo xëy rek ñoom doon yëglu nag ñoom liggéeykat ya li ko waral bokk na rek nee Euh, ci li ñu bëgg nag ñu doxal ko muy lépp loo xam ni euh, day ruusee ci seen këru liggéeykaay ba di entreprise bi euh, ñu jariñu ci client yit nag noonu li ñu duppee nag Crimée Congo di ab jàngoro kon ñaareelu cas gis nañu ko fii ci Sénégal ca Linguère la ñu ko gisee moom moomu nag nee ñu wér na bu nu sukkandikoo ci kilifa yore wàllu wér wérgu yaram gi teewul nag ba tey ñu ne faw rek ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu fegu gi mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci euh, xibaaru marax nii ñu doore ko rek fële ca place de la nation ci tënk ak euh, ay junni junni doomu aadama yu fa teewoon euh, jamono ji ñu wax ak yéen nag kon ndaje ma ñu koy amal ca place de la nation muy waa Yewwi Askan Wi ak ña ñu àndal Ousmane Sonko nag teewul xalifa Ababacar Sall ma teew nag nee ñu askan wa dañu ko doon yuuxoo ñoom ñëpp nag li ñu bokk wax mooy président Macky Sall du fi am ñetteelu mandat. du ñàkk ñu delsi ci laata delsiwaat ci laata xibaar yi di jeexa ñu wax nag ci leneen muy euh, rek lu jëm Euh, kon batay ci politique la dess des ndax ñi def ñuppé force vive euh, manam euh, li sétlu moy mooy mbiccoo geeg gi ci walu politique digënté Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz lool nak nee mënul indi ben gàllankoor ci yeewi askan wi bu ñu sukkandiko ci professeur Moussa Diaw jàngalé kat la nekkit kat ci politique ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ndax néna na kon yeewi askan wi mi ngi Euh, kon euh, sukkandiku ci waa taxawu Sénégal yeewi askan bi ci boppam ak euh, PUR ñu teewlu ko ak Ousseynou Diop. leader yi nga xam ne ñoom ñoo engagé wu ci coalition bi wane nañu ni ñoom am nañu pas-pas pour continuer. continuer dans coalition mu gën Même ce même su fekkee am ay difficultés je crois que suñu avons ay concertation approfondie entre les leaders muy PASTEF ak PUR ak Tahou Dakarou euh, continuer la euh, continuer coalition bi euh, am ñu bari avec beaucoup de pessimisme ni coalition dans la tasse parce que y a des difficultés entre Barthélémy et Ousmane Sonko mais je pense que il y a leaders yi nga les leaders ñoo engagé wu coalition Euh, loolu daañ ko saafara daañu discuter xam nañu loolu c'est incontournable coalition bi war na dëgër su dëgërul nag dañ leen di ay difficulté mais yaakaar naa ne dana dëgër ci soo ñu dégloo déclaration euh, muy Ousmane Sonko muy Khalifa Sall. Euh, Et d'ailleurs, déclaration de UBSU, de Ousmane Sonko, à réponse ou Barthélémy. Mais on est tout simplement que, de toute façon, euh, leader, il a une de et que Barthélémy, c'est là-bas, c'est vrai, mais, il n'y a pas yak, wala, euh, fonctionnement ou quoi, waxoon nañ ko ci euh, ponk yi li ñu duppee bracelet électronique euh, kilifa yi ngànk wàllu yoon fii ci Sénégal euh, nee ñu nag bi ñu ko tàmbalee takkal ñi caabi féete gannaaw ñenn ñi ba tey ci juróom fukk la ñu toll waaye li ñu jot nag kon ci bracelet yooyu ba ñu ko xaymaa junni la ci appareil yoo xam ni jot nañu ko bracelet yooyu nag tamit dañu seet lu jëm ci wàllu ko dindi gi tamit faaw rek yoon nag daal ci joxe ndigal ñañu jot a dindil tamit seen bracelet toll nañu ci euh, fukk ministère bi ñu gàll wàllu yoon nag nee na lu jëm ci colk ak euh, soluk bracelet yi daañ ci def seen kéemtalaay euh, kàttan ndax tey am nañu ceebe caabi féete gannaaw ñoo xam ni mën naa ñàkk mën nañ leen takkal bracelet électronique boobu ñuy wax Maymouna Ndiaye Alioune Diagne. ay ndaw ministère bi ñu dénk yoon wi ñi nga xam ni ñi ngi fare ci direction bu ñu dénk affaire criminelle ak grâce ndaw administration pénitentiaire ñu jano ak taskatu xibaar yi laaj ak tontu séq seen diggante ci lam yoon gi nga xam ni dañ ko indi ñu ne ngir féexal kaso yi. suñ leen présenté bracelet électronique bi wax leen centre de surveillance électronique bi nu muy doxee wax leen lépp loo xamante ni moo nekk ci bracelet électronique bi ba ñoom ñu xam ko comprendre ko tasaare nag compréhension boobu jàpp nañu ne politique pénale bracelet électronique bi ci lay ëpp succès. ngir ñu takkal ko nit ki wala sax ñu dindi ko dafa am yoon woo xam ni dañ koy topp ci kaw ordonnance bu juge bi. mun na nekk juge d'instruction bi comme mun na nekk juge de l'application des peines maanaam ordonnance bu ñëwee day dem ci coordonnateur bi coordonnateur bi def vérification yi mu ci war a def après ko transmettre ko nag unité de surveillance bi bu ko transmettre unité de surveillance bi su boobaa ñun si lañuy jël suñu équipe. mais balaa ñuy bàyyi nit ki mu dem moom il faut qu'on s'assure que bracelet bi tëju na que bracelet bi mu ngi répondre que bracelet bi mu ngi communiquer que réseau satellite bi baax na parce que moom lañ koy suivre. biñ ko dalee teg fii ci Sénégal ba léegi wàññi nañu juróom fukki lam yoo xam ni tegal nañu ko ay nit ñoo xam ni yoon daf leen di toppee dara fukk yoo xam ni bi ñu demee ba ci biir am nañu ndigal ci juge bi ñu teggi ko. dem nañ ci dem nañ fi saint louis dem nañ fi matam dem nañ fi louga dem nañ fi djourbel amna na brasse bu nek tamba amna podor hein ah, kaolack fatik fundun, donc pratiquement euh, def nañ mariage quoi donc euh, ñu ngi xaar dal pour égali égali mariage territoire ba bu fekkee ci kaw docteur ñaala won bu suma procureur bi dafa defoon appel gannaaw mom ba lanké né du tak lam yoyu magistrat bi di ci indi ay leeral y avait apparemment processus. wax ci cas bobu moy biñu démé ci procédure bi amna fo xamni euh, amon na lu des. moo procureur bi dal di def appel li ci mën tek dal ci xibaar ci léral euh, moy euh, pause bi pour ñu défal ko nit ki accusé bi foog mom mu and ci wala sax mom mu sàkku ko. gannaaw journaliste yi dina am beneen formation boo xam ni dinañ ko def jëmale ko ci ñi fare ci société civile bi lii lépp nag di dem ci gën a leeral liñu ñu duppee surveillance électronique ci lam yi nga xam ni yoon moo ko fi teg. Maimouna Ndiaye ñu lay jaajëfal ca lycée XSM1 euh, bu nekk ca Daara nag benn professeur math euh, SVT la ñu tuumaal ni dafa sàkku benn ndongo euh, ci jamono nag yi mu doon def loolu la ñu duppee cours particulier maanaam di leen jàngal ca këram nag la leen doon jàngalee xale bu jigéen boobu nag ay waajuram daal di nañuy porter plainte moom professeur ba nag ma nga ca garde à vue Mamadou Moustapha Ndiaye. XSM1 bu Daara. mbir mu doy waar moo fa xew benn élève buy jàngee classe troisième moo jiiñ benn professeur buy jàngale mathématique ak SVT ne dafa yegg ci kawam mbir mi mi ngi xew démb bi 16h jotee professeur boobu nekk ca lycée XCM1 bu daara jamono ji mi ngi ci loxo yoon ndax kat famille xale bi ñoom ñoo déposé benn plainte ca brigade gendarmerie bu daara Jolof xale bi mi ngi am fukki at ak juróom gannaaw bi nga xam ne yóbbu nañ ko ca centre de santé Elisabeth Diouf bu daara Jolof mujj gi ci leen ko yóbbu fële ci hôpital Magatte Lô bu Linguère ngir faj ko ngir jàppale seen moroom moomu xale yi tey dañoo génn seen morom yi nekk ci lycée yi ak collège yi nekk fii ci Daara Jolof ñoom nag li ñu bëgg rek mooy yoon def liggéeyam ki nga xam ne ni moom lañ jiiñ mbiru viol boobu dinañ ko defeere ca parquet régional bu Louga jamono ji coow li bari na lool fii ci Daara Jolof ku ne ak ni ko gisee. ma nga ko chauffeur ya nekkoon ca Burkina Faso. muy euh, doomi Sénégal yooyu nag euh, ñibbisi nañu ñoom chauffeur soosu nag seen lim tollu ci fukk ak euh, juróom-ñeenti mooy nag ñooñe daal amoon ay jafe-jafe ndax ay nit yu yoroon yi ngànnaay muur seen i kanam ñoo leen daboon ci tali bi taal seen oto ba oto ya tàkk ba jeex tàkk boole kook marchandise yi tey nag ñibbisi nañu ñenn ñi nag ña ngay nettali la ñu daj keroog ba ñu dajeek samba booy yooyu waaye tey la ñàkk yëpp nag bëgg nañ daal ku leen dimbali ci wàllu booy xool ëpp na juróom benn téeméeri million ci suñu xaalis Abdoulaye Diop. mbégte bu mag dal famille chauffeur yi nga xam ni ñoom lañ jàppoon ci Burkina ku mel ni ki jigéen kii nga xam ni jotaat na ci rakkam ji. ñoom ñëpp nag ñu dalal seen xel di sant yàlla. ñu dellu wax alhamdulilah rabil alamin te xam ne jullit tey nangu dogalu yàlla. waaw bi ñu fii moom dëgg si yàlla moom sant nañ bu baax a baax ndax teer nañu. chauffeur bi nag mu ngi nettali li nga xam ni moo leen daloon ca Burkina. dañoo yaakaar dañuy rey ñun loolu lañ yaakaaroon léegi ñu ne xar yi yoroon ñu ne wàccee leen ñu wàccee xar yi après ci lañ commencé taal yeneen oto yi taal yeneen taal yi ba mu jeex ñu bàyyi ñu quoi ñu war a dox dem ba mu ci ca jamono boobu nag famem nekkoon ci njàqare bu metti mënu maa xam samay fekk na ñu tegal ma ndéki waaye dama ko tekki suuf tëdd waaye léegi nag ma daal delluwaat ci suñu biñ doon seen porte parole di ko nettali ba man ba ne sant gaan bi na ba bu bal yàlla moo ko parce que bëggoon ubbi sama porte arrière ko ubbi ba mujj gi sax mënatul wax ndax ay

moo ngoog waa F24 wax naa ko sànq tey nag euh, ña nga woon ca place de la nation ay junni junni doomu aadama euh, daal di fay euh, tase ñoom ñoo ñu faree ci kuje gi Ousmane Sonko nag teewul ca ndaje moomu waaye la ñu ca jàpp rek mooy xalifa Ababacar Sall ak ñenn ca ñoom ña fa teewoon dañ leen doon yuuxoo. kàddu gi nag foofu genn la mooy président Macky Sall du am ñetteelu mandat Ababacar Camara la ñu ci àndal ak Modou Fall. nit ñu bëri ñëw nañu wuyu si ci woote opposition bi waa f ñoom ñi nga xam ni dañoo woote ci place de la nation ngir ñaawlu li nga xam te ni moom la euh, Macky Sall di def ci réew mi ñu ne ñoom nag li ñu bëgg rek mooy dajaloo xeex li nga xam te ni moo di troisième mandat ak yenn yi nga xam ni ñu ngi koy tekk yenn ci leaderu opposition bi. waaye ci bi leen dajee ki nga xam te ni moo di xalifa Sall bokk ci conférence des leaders bi muy jël bu mujjul yegg ndaxte ndaw ñi dañ ko yuuxoo. daanaka sax Déthié Fall moo mujj yegg li wax ji. gis nga sama prise de parole ñëwagul wante yéen ñi nekk fii taxaw je que ay patriote yu mag ngeen est-ce ay patriote ngeen. yuuxoo yooyu mu mel ni kon El Hadj njaay mi fi teewul Ousmane Sonko nga xam te ni ñëwut doon surprise générale bi nee na day seen leader waxoon na mboolem militant am

ñii mu tëj leen ñii mu isolé leen ñii mu door leen contrôle judiciaire ñenn ñi mu delloo leen ci buumu jaam ñu mel ni man ngeen gis ko nii waaye lu metti yàggul. waa f defal seen mobilisation ci place de la nation am na nag ay yenn ci jàppante rek yu ñu nemmeeku waaye yëfi daal mujj na jeex ci jàmm. باسم البريزيدان خليفه ابا بكر ma ngoog ñu wax ci leneen muy liggéeykat yu euh, Sonatel yi xëy tey ci àjjuma ji nag euh, daal di dem ca barab ba waaye daanaka defuñu fa lenn ndax euh, li ko waral mooy dañoo meex ñoom liggéeykat yi nag ñu ne lépp loo xam ni dafay tukkee ci kër gi di Sonatel nag bu ñu sañoon daañ ci gis seen bopp clients yi tamit naka noonu Mamadou Lamine Badji moo wax ci turu liggéeykat yi ñu teewlu ko ak Fatou Bintou Conté Amadou Ba ci caméra bi.

di alalu sénégalais yi euh, entreprise bu mu mun ci doon ay nit ñu bëri ñoo ko ki ci njëkk moom mooy état ñaareel bi moom mooy ki ko moom bi mooy client yi ñeenteel bi moom mooy liggéeykat yi waaw entreprise su amee su su su ay bénéfice yu baax ku ci nekk ci ñi war naa gis ne entreprise bi baax waaye dafa mel ni séddale bukki ci am muy euh, golo dafay béy di dunde loolu nag dañoo wax ne mënuñu koo nangu benn yoon loolu moom moo waral coow li Euh, ni ñu ko doon waxee ci euh, ndoxteel yi ak euh, jàngoro ji ñu duppee Crimée Congo ñaareelu cas bi nag gis nañu ko Sénégal ñaareelu cas ca Linguère lañu ko gisee waaye nag kooku mu dal nee ñu tey ji nag wér na te wàllul kenn amul kenn koo xam ni itamit jot naa laale ak moom loolee lañu xamle waaye nag teewul kii jiite li ñu duppee surveillance épidémiologique fii ci Sénégal nag mi ngi gën a dànkaafu wi ñu gën a moytu lu jëmit ci xar yi nga xam ni euh, war na dugg ci réew mi ci tabaski bi ñu dëgmal tamit ci loolee mi ngi ciy dalal xel bu baax a baax Abi Faye la ñu ciy àndal Ba. jàngoro ji ñu duppee fièvre hémorragique de crimée kongo la koy indi bokk na ci yaram wuy tàng bu jéggi dayoo mën na sax dem ba toll ci 40 pour cent ñaareeli cas gi ñu gis fii ci biir réew mi rawatina ca Linguère loole tax na Sénégal ñu ne sax situation épidémique la ne. cas ñaareel bi ñu am. cas Linguère vraiment dafa nekk bu simple mais fu mu fu mu nekk nii fu ñu waxee yow nii cas bu wér na parce que équipe yi nekkul Louga ak Linguère biñ ko waxee ni am na rek nañ fa wàcc parce que dañoo xayma woon euh, feebar yi ci euh, euh, dëkk bi donc ginnaaw feebar hémorragie boobu Crimée Congo am na ay feebar yu bëri tamit yoo xam ne dañ leen prioriser et ay bés bu nekk di leen surveiller. li nak la kay joxe ci nit ñi mën na joggé gannaaw ba nga xamante ni deretu kaka am la ba sax ca mala yalla jëm ci mom ba tay ji amagul vaccin buy faj nit ba sax mala bi parce que dafa lek ay complications à type de hémorragie soit malade bi di watch watch bi anak ak deret wala buy tour ndox tour ndox bi ànd ak deret wala bu dem ginnaw kër mu ànd ak deret wala sax yeen say buñu sax ñu gis ay tipp tipp yoo xam ni deret moo ko moo ko waral. dañuy def euh, prélèvement bi yóbbu ko laboratoire gis nga la la laboratoire rek moo la mun a wax est-ce que crime ko nga wala waaw bu ñuy xool ci nattukaayu OMS ci xayma yi dañ ne dëkk boo gis benn cas rek fièvre hémorragique Crimée Congo boobu dëkk dafa nekk en situation épidémique waaw. tabaski la ca des bëreetut xar yey jóge ca sous région ba bëri war a dugg ci réew mi docteur Boli Diop di dalal xel yi ca ñaax gi la ko teg ne leen faaw ñu fagaru ca ba ñu koy rendi ba nañu koy feesee. mooy euh, euh, solo si mbir mi foofu la ñu war a jox suñu ay matuwaay yu bëri ba bañ a dagg parce que boo daggee fekk deret bi am na doomu jàngoro mun na la wàll mais bu fekkee dagguloo jël nga say ay matuwaay ah, même bu leen laalee deret boo ko laalee raxasu amul benn jafe-jafe. gannaaw kaa njëkk. ga ñu gis ci fièvre hémorragique de Crimée kongo fii ci Sénégal ca Géejawaay mois d' avril bi ñu génn waral na réew mi moom nekk na ci situation d' épidémie teewul itam patient ba mujj na génn àdduna ca hôpital Dalal Jàmm ministère gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram gi moom activé lii di centre opération d' urgence sanitaire ngir rek gën a mën a saytu jàngoro gi addu ci forum bi ñu jegleel wàllu koom diggante Singapour ak Afrique ñi ngi koy waajal nag ñaar fukki fan ak juróom-ñeenti lay doon jàpp fanweeri fan ci weeru août bi ñu euh, dëgmal euh, ki ko xamle nag di agence gouvernementale entreprise Singapour euh, bi amal nag ab tukki nemmeeku fii ci Sénégal moo am ay acteur yoo xamante ne nag yuy yëngu ci wàllu njënd mbeeg njaay mi rawatina wàllu ministère bi ñu dénk wàllu commerce waxtaan nañu bu baax a baax ci forum boobu nan lañ ko fas yéene tëralee ak it euh, lan mooy njëriñam Ibrahima Kane la ci àndal. ci wutum opportunité d'affaires yu bees rawatina itam ay partenariat fii ci Sénégal Singapore Enterprise nekk ci réew mi di daje ak opérateur économique yi rawatina opérateur commerciaux yi mu di ay ndaje yu naalu ci ab mission économique bu ñetti fan mu soxal secteur distribution rawatina fabrication mu jëm ci produits de grande consommation yi ci suñu teewaay ci Dakar man nag ñëw naa ànd ak fukk ak benn entreprise yoo xamante ne Singapour lañ jógee dañoo ñëw fii nag ci cadre étude bi nga xamante ne moom la ñuy uh, amal jëmale ko ci secteuru consommation loolu nag ngir gën a comprendre consommateur bi fii nii ci Sénégal lan lay soxla ak yeneen dinañu jéem itam analyser bu baax a baax marché bi xool yan opportunité d'affaires ñoom ñoo fi mën a ubbeeku ci entreprise yi nga xamante ne ñoom la ñu àndal ñëw fii ci ndakaaru bu weesoo ndaje yu ni mel nga xam ne ñu ngi ciy wàccante xalaat ak a diisoo Singapore Enterprise itam ngir gën a mën a jàppale PME yi ñu soqaliku mu ngay waajal juróom ñaareelu édition forum économique bi dox ci diggante secteur privé bu Singapour ak bu Afrique Singapore Enterprise itam mu ngi waajal li nga xam ne moom mooy forum économique bi dox ci diggante secteur privé bu Singapour ak tamit bu Afrique loole nag dinañ ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent jàpp fan ci weeru août dina nekk nag ndaje moo xam ne dina doon opportunité ngir ñu am ay collaboration yu bees ci diggante ñaari secteur privé yi ñuy fàttali ne bii mooy juróom-ñaareeli édition bi te ñu ngi am yaakaar ne dinañu recevoir foofu entreprise africaine bëri ñuy wax rek ne Singapour Afrique léegi at mu jot dina amal benn visite ci ñeenti réewu Afrique yi nga xamante ne ci lay liggéey mu di Sénégal Nigéria gana ak Côte d'Ivoire. ñuy fàttali ne forum googee mooy doon bi ci njëkk gannaaw pandémie Covid 19. dinañu ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent jàpp fanweeri fan ci weeru août ca Singapour mu di nag ndaje boo xam ne luy baax lay doon ci entreprise africaine yi. ma nag du yàgg dara nag euh, ci diwaan yi euh, ci euh, Sénégal nag daañu fasampi yi ñu duppee comité ad hoc bu SODAV solo si nag mooy kër gi di SODAV nekk fii ci ndakaaru nag lu jëm ci liggéeyam ñu gën koo yaatal ci diwaan yi su ko defee ñii di artistes yi rawatina ku ne mën caa gis sa bopp ñu teewlu Ibrahima Joseph Gaye bokk ci conseil d'administration bu SODAV am na ay kàddu yu mu dénk Lamine Ba ak Lamine Mandiang ndaje bi euh, sodar dafa xalaat ni que moom comme région yi dañoo sore te vraiment ñi nga xam ni dañu nekk en dehors de Dakar souvent information bi du teel a àgg donc ñu ni à travers toutes les capitales régionales bu ci nekk ni dina fa am benn commission ad hoc régionale boo xam ni moom mooy nekk prolongement wu ñun la ñuy def ca Dakar donte euh, SODAV

ñoom ñoo ci ci parce que bi ñu fi ñëwee ñoom ñoo leen voteel daal di leen fal ñoom ñu nangu ko ñu daal daal di ñëw nag donc représenté leen donc rôle principal bi moo di lii ñu jàng fii wala li nga xamee ni yokk na seen xam-xam ñu wasaare ko ci acteurs culturels yi euh, à travers les départements non seulement euh, bu Ziguinchor waaye fii ba Cap Skirring fépp foo xamee ni artiste ma nga fa ayant droit ma nga fa ñoom ñu àgg fa def nañ ko bon ci biir auteur mooy ñi nga xam ne dañuy fent ah ak ñi nga xam ni ñooy jëmmal li fent muy artiste interprète yi ak producteurs yi ak radiodiffuseurs yi ñu xam fan la affaire yi toll ngir ñoom tam ñu mën ko wasaare ba ñu xam lan mooy seen yelleef ak seeni wareef donc eh, ci foofu la ñuy jeexalee xibaaru marax mi mbokk yi ñu sant leen gërëm leen bu baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine ba ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti eh, Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew ngir eh, jukki leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.